république lu mu defal yéen jigéen ñi ci lim leen defal ci li ngeen war a naw ca war koo jàpp Adja Mously kaay taxawe nii mbokki Yara jom rek jom boo ko amul foo jëm jom jom boo ko amul foo jëm jom rek jërëjëf xam nga man suma ñëwul woon sax Marème Faye Sall première dame moom xam na lu tax waruma woon ñëw ñoo ngi nuyu mbokki yaraax di nuyu délégation département Dakar di jiital ci nuyoo bi premier dame madame Marème Faye Sall yàlla na sa jàmm yàgg barki dem laa jóge Tunis yow mi yaa ma fa yóbbu dama fa yeggee dama fekk clinique boo xamante ni cinq étoiles la quatrième étage bépp ay sénégalais fa nekk sénégalais bu nekk yaa ko fa yóbbu xam nga nit bu defee lu baax bala nga kookoo wax moom mi ko def mooy ci am satisfaction morale parce kooku baax dafa ànd ak moom kooku mooy Marème Faye Sall Madame la Première Dame la juin 2007 dugg assemblée la le 20 juin 2007 président Macky Sall nekk président assemblée nationale sa kër nekk ca wetu assemblée nationale looloo mag APR nga xam la nag ca booba nga jàppale sa borom kër. soutenir ko def ni jigéen ju baax di def loolu du tey yow matuma ci yow seede damay wax ni sa diggante ak yaraas ak sa diggante ak man ñaar laa ciy wax benn bi mooy sant bi ci des mooy ñaan ci li ñu jëm sant ci ci li ñu weesu sant ci bourse familiale bi sant ci matelas yi sant ci wari yeeg orange money yi sant ci duus yi sant ci wàcce gi nga wàcce sa bopp ba ma ànd ak sénégalais yi madame la première dame merci ñun yaraax ñun dañuy taxawaal rek barki dem dama ñëw fekk Fatou Diouf mi jiite délégation bi nekk di proximité ma ni ko xanaa dañuy nuyoo waaye fii moom la président de la république campagnal boppam moo ñëw bëgg waa yaraax fekk ñu ñuy dëkkub mool di dëkkub lebu di dëkkub waalo waalo dangay daw ba ci yàgg nga dugg ci kër mu lotise ko relevé plateau technique gu mareyeur yi nappkat yi duñu ko weddi jigéen ñi duñu ko weddi teer bi war a gaare fii yarax nekk cité moderne te ñu yàgg wax ni yaraax cinq kilomètres palais de la république te lépp lañu namm lépp lañuy ñuy jéggaani le président de la république a ñëw faj ko madame la première dame dama ni maa sama ñetteelu mandat macha allah fii ci mairie bi action au maire laa ñetti yoon député ñetti yoon tubaar fakkal la actuellement ñaari ndomba laa fi taxawe député laa adjoint au maire la dama ni kon xam naa li xew ci dëkk bi li fi président de la république def kenn defu ko fi dama ni Senghor def na de dafa tabax état Abdou Diouf def na de kenn du ko weddi 81 la jël réew mi réew mi am maral mu tenir ba tegaat Sénégal ci yoon Ablaye Wade def na de ndax moo xotti pont yi daa teg autoroute ñu ni waaw ndeke autoroute mën naa am waaye nag diglu leen ma wax leen sama waa ji sàll ngaari lam tooro jërëjëf jërëjëf kooku nag li ñu def cinquante deux dafa ñëw triplé ko ci juróom-ñaari at muy infrastructure mu wan sénégalais yi ni xaalis kenn du ko lijjanti dañu koy liggéey wan sénégalais yi ni war nañoo may bari ceeb di ko dunde ci réew mi kenn du ko jéggaani wan sénégalais yi ni nit day gëm boppam moom ci boppam confiance bu extérieur am ci moom looloo tax réew mi tegu ci yoon mu teg ko ci stabilité am xam-xam nag tey doxee xam-xam doxee xam-xam mooy projet bu mu yëkkati danaan tay laa koy commencé bii laa koy yeggale def étude technique def étude financière boole ko bëgg réew mi mani li mu jël ca bitim réew indi ko ci biir réew mi defu ko ci ay molette di ko distribuer da koo delloo ci askan wi ministre des finances et d'économie ngeen jàppaloog man kookoo dem ci këri diine yi fekk la taalibe ya mënul te yéene ko mu defal leen ko def ci courant loo xamante ni romb nañu 60 pour cent ci biir réew mi def ko ci ndox xëttale yi nga xamante ne dañoo amoon ay satadoo ak i forage ñuy bay nawet di bay noor yërëm néew ji doole yi def jalis gratuite zéro ngay faju césarienne gratuite def sant pour tous le Sénégal pour tous et pour tous kookoy le président de la République ñun nag kooku lañu àndal ñun kooku la bëgg ñun kooku la ñuy woteel ñun kooku la ñuy fal mani ñun buñ nee waaw waaw la waaye bala ñu naan waaw dañu xool lu tax dañu koo làmbatu xam ne askora ngi soo xam ni léppam ci senegaal la ko def directeur ministre premier ministre président assemblée nationale président de la république mu jël nag dawis def noppi ak liggéey kookooy le président Macky Sall ñun kooku lañu ñu gëm ñun kooku la ñu àndal ñun kooku la ñuy woteel monsieur le ministre Amadou Ba dalal jàmm ñun wote kotu budget la ñu kenn du ko weddi li président def ci élevage kenn mësu def daa ñëw fekk ñuy def juróomi téeméeri million mu def ñetti milliards déggoo ma de dama ni dafa ñëw fekk ñuy def ci élevage juróomi téeméeri millions suspension mu def ñetti milliards xanaa secteur élevage su ko weddi artisanat mu wëlbatiku créer leen formation professionnelle def ko ministre entier boo xamante ni xale yi ku ci jóg dangaa war a def formation boo xamante ne dangay métier mi ngay exercer day nekk professionnellement boo génnoon réew mi sax buñ la nee loo xam nga joxe diplôme le président de la république moo def loolu. kon tey li am solo mooy li ñu bëgg a wax bari na kontaan nañu ñoo ngi sant tonton Mansour Tambédou moo nekk suñu président comité électoral ba ñu ko tegee ba tey yaa ko jiite tubaarkàlla macha allah. di gërëm ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi liggéey ak moom ci comité bi parce que nag ñun yaraa am nañ lu jafe bu nit ñi di xeex ñun suñu suñu doole ak suñu force mooy àndandoo xam li ñu bëgg mooy yëkkatendoo doorandoo fal la président le 24 février incha allahu rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Adja ci wax jooju nga wax defe naa ni li mu wax loolu mooy li nga xam ne mooy li am moo tax nit bu la dee laaj ni la jox ma dara da ngay xool la mu liggéey ba pare mais defe naa li président la république Macky Sall liggéey bu leen leen joxaat ma réew mi di ngeen ko ko joxaat damay jox léegi li ma leen di wax yéen jigéen ñi gratuité césarienne yéen du ngeen ko weddi yéen jigéen ñi